asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère la santé de l'action sociale tey ajjuma fukki fan ak juróom-ñett ci weer septembre bi ñu nekk ministère la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci junni ak téeméer ak juróom fukk ak ñeent test yi ñu def ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñett cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxase woon jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci lu ñuy wooye cas communautaire ñu ngi tollu ci fukk ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci cas communautaire yooyu seen lim ni la tëddee ci gox yi may waaj tudd léegi Dakar Plateau am na ci ñett Saint-Louis am na ci ñaar Mermoz am ñaar Thiès am ñaar Mariste am benn usine benn tali am benn HLM Grand Yoff am ci benn yof am benn Géejawaay am benn Rufisque am na benn Yëmbal am na benn Joal am na benn Mbuur am benn Ziguinchor am benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak benn ñu nga ci réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weer septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak juróom fukk ak benn wér nañ si ñett téeméer ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñett junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñi des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la